ji ni Macky Sall il euh, yoo xam ne euh, coow li bëri na lool rawatina ci euh, deuxième bi hmm. ni mu génnee rafet lool àdduna bi yëpp saluer ndax loolu doy na tey jii nii pour que ñu reconnaître ko benn leadership turam des dans l'histoire wala am na loo xam ne xëy na moo ko desee ci sept mois yi ñu jëm ben mooy consolide l'état de droit le fait tey mu wax adduna bi yëpp ak diaspora beeg àdduna bi yëpp Sénégal ak ñëpp d'accord ci ne il est sorti par la grande porte lui permet aujourd'hui parce qu'il est devant l'histoire et yaa ko wax sa bopp il faut que mu marque cette histoire la mooy d'abord conforter les institutions de la République mm-hmm. mais comment peut-on accepter aujourd'hui ñi nekk di banaliser aujourd'hui les institutions de la République di ko nasaxal kon sur l'état de droit daf ci am ay jéego yu wóor yu mu war a def et on l'attend sur ça